Seex Béthio njëkk koo def Tiwaawan Pël ci doomi Tiwaawan Pël ñépp toog di xaar résultat ba ñëw muy leer nañ muy teral waa Tiwaawan Pël yëpp di dimbalee nag ku fa nekk dimbali na la kenn du ko gis di ko yërëm barki Serigne Saliou ku ñëw dama ko indil oustaz Pape An mi nekk télévision Futur Média mu yëkkat terrain may ko ak ñeneen ak ñeneen ma ngay tabax te lépp nag boo waxee nag mu ni Cheikh Béthio rek Serigne Saliou rek gëwuma keneen. xam nga du koy woowe bu ma koy jox kàddu dama naan ko kii mooy Cheikh Mouhamadul Bachir taalibe Cheikh Béthio jaamu sëriñ Saliou moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Moustapha yaakaari jaam ñu góor ga demoon maa yombi dem wiir wiir kon Cheikh Mouhamadul Bachir mii bu defee délégation bu rëy bii yëkkati teraanga ji sànq bi ñuy ñëw mu gaare ni ma sayer damaa bëgg oto bi fees ndax ci sama sëriñ laa jëm Medinatu Salaam laa jëm te bu ma fay ànd bu ma fay dem lu ma am day dem. doom yi day dem xarit yi day dem soxna yi day dem ñëpp ngi ni toog kon sëriñ bi kañ ñu ngi lay ñaanal lii nga def dañ koy seedal ci kanamu sëriñ Saliou miy toog te xool ba nga xamante ni nag sëriñ saali xooloon na ko Cheikh Béthio xam naa ni day mën naa ni day bu la bu la ne woon jàkk day kën a kii waaye dalaa piis waaye gis nga tey ni mel dalaa gestu rek kon daal soxna si ñu ngi lay ziar bu baax a baax. ñi ngi kontaan bu baax a baax Cheikh Mouhamadul Bachir mii daal rëcc wu ñu la ngeen ko tege Tiwaawoon pël ma ngay dimbalee nag te nag day dimbalee ba faw nag bien as bien fait jërëjëf. chaque événement fii nga ñuy dalal barki Serigne Saliou te yëgoo ci dara daanaka kuréel ndakaare bi rek nga ci xam waaye cee ak fépp maam képp kuy jàngkatu xasaayit bu ñëwee ci sa kër gi lay dal nga koy teral di ko sagal barki Serigne Saliou Mbacké te jàngkatu xas day mën nañoo tuuti nag ci bët. waaye ay jamono sëñ Touba moo leen daan dëkkoo te loolu du ay caaxaan barki Serigne Saliou Mbacké ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax baax sëñ Béthio loolu nag moo waral ñii bu ñëwee di indi seen addiya ji ma ni faaw ma ñëw seede loolu. تبت إليك نادما مما مدى من الذنوب واكفني يا من هدى تبت إليك نادما مما مدى من الذنوب واكفني يا من هدى يا من حبى بمن جلى ومتر وكلما تفى وما مني صدر واقبل لعبدك اللمين أحمدا توبة آمان بجاه أحمدا صل علي عددا لولا أخلاقي وعدد الأشجار يا خلاقي يسر لي ميسر الأسير ما اختار لي بلا مسير ولا الليل لسواي مدبرا بما لا سير يدوم دبرا ما تواجه المكاره ليا باخ خبا بذكري ووليا عن رديت وهو كارها ولا مرادي رد لخير جاتي سيتانا من طيب الممر والأوتان فر لخير جات العين يسوها لخين المعين هديتي من الإله والنبي كليتي سفد وسفدت بي توفيها Mbacke jërëjëfaat Serigne Saliou sëriñ Serigne Becco jaamu Serigne Saliou yàlla na fi yàgg lool te gën a wér Serigne Becco jaamu sëriñ saaliw yàlla na fi yàgg lool te gën a wér Serigne Becco sunu yaakaar te ak ëllëg yàlla na fi yàgg lool te gën a wér waaw waaw mel ni ñu ngi siyaare bu baax sunu yaay bi e, ñu ngi koy siyaare bu baax a baax di feeñal sunu mbég jëmale ci moom di santaat Serigne Becco sunu cant goo xam ne am na tàmbali waaye amul fu mu yem ngir di set avril bii nga xam ne e, fekkee nañ ko nga xam ne bés bu nit am bés bee ko waral ñun lu ñu am ci sëñ Touba bés bii bu amul woon duñ ko am waaye bés booboo ñoo yóbbee ñun ñii yëpp ñu xamante kon sëriñ bi dimbali ñu ba ñu fekkeewaat ko toogaat ci këram toog di waxtaanee mbiram loolu doy na ab cant waaye nag bu ñu santee suñu yaay ji dañ teg suñu sëriñ di sëriñ seydinaa Cuun di suñu sëriñ di suñu lépp fonk ñu fonk bi mu ñu fonk foo ko natt weesu na ko maanaam mu ngi mel ne rek nit ak doomam barki sëriñ Saaliw ndax yaakaar naa heure bu nekk e, yaa so fekk nga nga ñu ñun ak moom bu mujj ji sax yaa ñu tegal reer ñu reer ñu toog guddi waa <laughs> nga xam ne def ñoo fonk fonk boo xam ne su màggal ñëwee wala 17 avril ci këru boppam moom lay jël dalal ñu foofu nga xam ne loolu yombul waaye ñu ñu ngi ko ci sant bu baax di wax ne moom mooy sunu sëriñ waaw mooy sëriñ de la jeunesse waaw sëriñ sa Seydina Thioune mooy sëriñ de la jeunesse da lay fekk nga nekk ndaw di la conseil di la digal di la ñaanal ci pet nag fekk kenn du ko xam da ngay xëy rek suqeeku waaye du ñu xam lu la def noonu moom moo mel noonu waaw barki démb rek la ñu géej a déggante waaye su ma taaloon ñaan yi ma ñaanal ci sama vocal yi barki Serigne saalu seen yaram day daw kon kooku mooy Serigne de la jeunesse suñu yaakaar di Seydina Thioune di suñu Serigne di suñu lépp moo tax eh, ñu ñëw jàpp siyaar bi ñëw siyaare suñu waajur suñu yaay di suñu lépp nga xam ne moom moo ñu boole ak moom ñu ñëw indi suñu siyaar waaye bëgg nañu mel na ne Seydina mu ngi fii ndax lépp buñ ñëwee dafa yaatu te lu ñu am gannaaw yàlla kii la waaw gannaaw bukki mbaar waajur day lépp ndax moo la wattu ci xal wattu la ci terrain wattu la ci fépp dara xossiwul dara laalu la ba nga mën xam ndéem euh, deretu sëñ Béthio dañ ko mooñaale ak Serigne Touba loolu moom na ko ñëpp xam ku ko xamul woon nga xam ko waaye xam-xam day jàngalewul c'est que sooy wax yenn wax yi te dégg-dégg tolloowul xam-xam tolloowul mën na am fu nit di gisee waaye sëriñ Béthio mooy sëñ Touba waaw ndax sëñ euh, xamul waaso xamul aado aada xamul tur xamul deret sëñ ki nekk ci moom rek la xam waaye ki ma yërëm rek mooy ni yàlla def sëñ neexu ko waaye képp koo xam neex na la rek maa ak bokk gis-gis suñ doon wax ba suba wax bi du jeex waaye ñu ngi feeñal suñu mbég ci ñëw ci kër gi di siyaare suñu yaay ji yu baax di ko jox wàccuwaayam di di sant ci moom bu baax ci gis biñ ko gis ndax ñii nga xamante ne ànd na ñoom de su ma limee dama dul motal mees ñëpp laa àndal waaye ñëpp ñoo képp koo xam ne de nattal li ma la wax nag ndax nit ku ñuul daa gaaw a jàpp am lu may kii waaye jàpp leen bés bi ngeen xool heure bi kenn ku ne bu di delloo bind ko ci agenda am ba heure bi dewen ngeen xool kenn ku ne niitaat gannaawam niit kanamam xool li mu jotoon romb diggante boobu dina am lu dina am lu mu ko jural ndax sëñ Béthio mooy eh, dugg léegi eh, liggéey léegi yegg léegi am taw féex léegi def la biddéew def na lu ko neex sëñ Béthio kon sant nañ baax yàgg suñu waxee ba suba du jeex mais bëgg nañu tey sama xol barki Serigne Saliou billaahi wallaahi taalaay eh, bëgg naa ndax sëñ bee ci lu ma mës a wax teg naa bët ndax ànd nañu yow sama gis ak bi yëpp dañ cee fekkee ndax sama wëllëre nga sama lépp nga sama doomu ndey bokk nañ laal bu ñu fanaan sëñ bee moo ma ne da da ngay am Serigne Saliou am Serigne Béthio yow yaa ko fekkee mu ne ma da ngay am Serigne Saliou am Serigne moo tax sama jabar bu bu ku omb jamono boobu rek damay jàpp ne dama ko naan Serigne Saliou ngay am waaye keneen ki ba mu ëmbee Serigne Serigne ba mu ko ëmbee dem nekk yow sëñ beccu ngay am ndax yàggul ci cant gi waaye am na nu mu gisee ak nu mu jàppee ba dem ko wax ba mbokkam yi dégg ko ngir xam naa man li ma sëñ beccu defal su ma nekkoon ci naka dul noonu sax su ma ci wooyee sëñ beccu mu fekk ma ci ngir fonk bi ma ko fonk kon man sëñ beccu desalatuma dara sant naa baax ñaan jëmmam bii daal maa ngi sàkku ñu fi toog yëpp na ñaanal sëñ Béthio yàlla na fi yàgg lool te gën a wér ñu tuubaat baax ci kàddu yi. yàlla na fi te ànd ak wér. waaw jërëjëf kon waaw kon waaw kon ñu maase déglu soxna si mu waxte ñaanal lu ndax waxtu yi xat na jërëjëf. jërëjëf jërëjëf maa ngi sant ak gis naa xéewal yi waaw barkeb Sëriñ Saliou Mbacke barkeb Serigne Saliou Mbacke barkeb Serigne Saliou Mbacke Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou yàlla na fi yàgg lool te wér man de fi may njëkkee mooy fi may njëkkee mooy mbég am mbég lool ci lii ngeen def nii wax dëgg yàlla euh, aadoo moo di ko am ndax man de sama jëmb ji jëmb ju suufi la maag yéen a yem man su ma toogee ci suuf ngeen toog ci kaw sax damay génnew barke Serigne Saliou man mii maa yéen a yem may dama war a ànd ak yéen cant gi ndax ñoo bokk sëriñ Saliou Serigne Béthio waaye lii ma gis suñ yàgg bég naa ci lool bu may tàmbali damay nuyu ñëpp mbooloo mi yëpp yéen ñi ñëw nii ak ñi nga xam ne ñoo ñëwul ñu nekk waa Tiwaawoon Pël maa ngi leen di béggee lool maa ngi leen di siyaare maa ngi sant bu baax a baax ci lii ngeen def ñëw siyaare si ma may ma li nga xam ne mooy sama wàccuwaay wii te man wàccuwaay bi sax aw ma ko xanaa lépp rek nañ ko sante sëriñ Béthio waaw ah, sëñ Basiru maa ngi sant bu baax a baax yow da nekk danga nekk sama mbokk maanaam alpulaar te nag waaye mbokk gi mbokk gi ca taalibe gi ko féete kaw te lii révolution la lii ci ci alpulaar révolution la na du daan am ay alpulaar yoo xam ne dañuy nekk di di aalu ci sëriñ bi di jël parole yoo xam ne nii ci wax ngeen wax nii loolu amuloon bu njëkk waaye mu ngi saa su ne léegi mu ngi gën a yokku lii kat révolution la kat barkeb Serigne Saliou man ndokk nag bi nga xamee ne man bokk naa ci sama njaboot bokk ci ndokk aussi bi nga xamee ne man la Serigne bi baaxee di 17 avril gii tey man la ko sëriñ bi baaxee man mii maa feeñal bés bi ma ciy sant bu wér a wér a wér barke Serigne Saliou ndaxte du sama mën du dara du sama baatin du dara moo ma ko baaxee moom moo ma ko baaxee rek jaarale ko ci man te muy leer lu leer nañ Serigne Béthio xam na ma. boobaak léegi ëpp na mat na 26 ans xaw ma parce que boobu ñu nga ñu nga fëleel ñu nga ñu nga Labat Fall te Labat Fall 93 laa fa jóge man de li may rëccu sax mooy li ma jàppul date bi nga xam ne moom la ma Serigne Saliou woon te loolu loolu muy lu leer te sëñ Béthio xam na ma xam na ne man du ma waxantu ma sant ci baax a baax seen ziar bii nag neex na ma lool bég naa ci lool Seydina de la daf laa fonk yow mii dafa wax ak man téléphone ne ma rikki waaye soxna Aïcha sëñ ka moom toppatal ma ko moo ko ay ganam bu dara bu leen dara manqué dama leen defaral sama kër nettoyé naa ko ba mu set léegi nag xéewal yee des bu ñu manqué dara ma ne ko du ñu manqué dara ndax ni nga fonkee sëñ Bass mii xam naa ne nit ku baax la taalibe la yooyu yéen bu ngeen toog boo toogee fii naan sëriñ sëriñ naa mooy sa sëriñ parce que sëriñ Saliou damay yéemu lool damay bég lool barke Serigne Saliou te te te Serigne Béthio moom xam ngeen ni mu mel ci Seydina xam ngeen xam ngeen ko ni mu mel ci Seydina ak ni mu ko bëggee bëgg ko lool ba wax ko ñëpp ñu dégg donc daal man man damaa xamul sax lu may wax barke Serigne Saliou bég naa lool lii ngeen def yëkkati seen seen euh, doom yi indil ma def seen mbooloo mii yëkkati koppar yi jox ma barke Serigne Saliou man waruma ko moom sax nag waaye maa ngi leen koy sante ci ba ci jëmm Serigne Seydina mii nga xam ne noonu ngeen ko def maa ngi leen maa ngi koy maa ngi koy sante Serigne Saliou di ñaan ci barkeb Serigne saaliw yow mii di jëwriñ bi ak mbooloo mi nga àndal ñëpp ñi ñëw ak ñu ñëwul ngeen nekk ci kaw faw ngeen yàgg fi lool ngeen ami xéewal faw faw faw lépp lu ngeen yittewoo yal na leen ko yàlla defal ci barke Serigne Saliou barkeb Serigne Béthio yal na dem ca kaw a kaw ca kanam te nag kat na nga rafet njort de na nga rafet njort lii ñu la waxal nii te ngay xale bu ndaw demagoo fen yow mii demagoo fen moromu naa rek ngay doon demagoo fenn sëy naa ni boo ko gisee nga defee ne te fekk na moom it demul fen amagul 30 ans waaw nga def nii nga def yow sëriñ bee la def loo sëriñ bi nga xam ne moo la moo la def moo lay tette lépp loo bëgg yal na la ko sëriñ bi defal ci barkeb sëriñ Béthio sëriñ Béthio yal na fi yàgg lool te ba déwén 17 avril bu teewee ko fii ñu ànd ko muy gën a neex ci barkeb sëriñ Saliou jaa ngeen jëf jërëjëf ci jërëjëf ci kontaan nañ lépp baax waaye jëm ci day ku baax waaw waaw tey ñëpp a ñëw ñëpp a ñëw artiste yi ñëw nañ barkat yi ñëw nañ léegi ñu ngi leen di indil ngeen dem moo ci man moo ci man yàlla na yàlla barkeel ko yàlla na fi yàgg lool